am may naa ko teggin euh, won naa ko ni yow yaay sama leader. Mhm. waaye ba ma demee élection donte moom moo ma teg tànn ma pour ma dem ci élection yi waaye gis naa ni beddi nañ ma. Mhm. mais qui même me suivent. point mu mhm. taxawal parti boppam. wala moom mën naa revendiquer ne ni mois je suis de l'APR. mais gis nañ fi PDS bis wala APR bis wala yu mel noonu. nañ ko si sa commencement euh, kàddu yi maa ngi lay dégg ngay wax affaire rapport yi. parce que lire nga wax nga fi premièrement dix rapports deuxième